bonsoir à tous euh, ñu ngi leen di nuyu ak euh, fu ngeen mën a nekk am mbégte euh, taxawaat fii ci kàttanu sunu borom gannaaw bu ma leen nuyoo di nag wax ni tey jii xam ngeen ko tiis dafa dalati ci kaw le monde de la presse wala la famille de la presse ki nga xamante ni moom mooy saalif jàlloo nekkoon nekkoon fële ca APS moom moo dëddu tey jii mu doon nag nouvelle boo xamante ni yëngal na la famille de la presse Salif Diallo mi nga xamante ni yaakaar naa ne ñu bëri wax nañ ko tey dans les réseaux euh, nit ku baax la woon mi ngi woon ci liggéey bi professionnel jusqu'au bout des ongles surtout disponible euh, ñuy nag euh, massawo ki nga xam ne mooy soxnaam di journaliste madame Boury Sock moom mi nga xamante ni moom itamit bi mu ñàkkee doomam yàggul ñàkkaat jëkkëram kon lu ñu koy ñaanal mooy courage Boury di ñaan Salif fële mu dem ci Vélingara nar faa tëddi ci këru dëgg ba yàlla na ko Seydina Mohamed teeru ak képp kum fa fekk yàlla na suufu Vélingara oyof ci kawam euh, ñuy ñaanalaat euh, ki nga xamante ne mooy buru sok euh, suñu consœur boobulee nga xamante ni ay tiis wala naqar boobu ba léegi mi ngi tegu ci kawam yàlla nag moo ni mel lu ko soob rek lay def mënuñu ci dara lu dul nangu buri encore du courage bu gannaaw si dañuy dalal ci première partie soir d'info ki nga xamante ni moom moo jiite association des mareyeurs du Sénégal ñu koy wax Thierno Mbengue ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci plateau soir d'info jërëjëf soxna bint maa ngi lay fay di nuyu waa TFM yëpp di ko commencé ci kilifa gi le président Youssou Ndour di nuyu groupe bi yëpp ci kaw ba ci suuf di leen jaale aussi seen euh, mbokk moomu gaañu mm-hmm. muy Salif moom yàlla na ko yàlla jégal yërëm ko waaye aussi di nuyu senegale yëpp mm-hmm. di nuyu nag secteur bi ma féete muy secteur de la pes mm-hmm. secteur de la pêche nag bu ñu ko waxee dañu wax pêcheur mareyeur transformatrice ak sénégalais bi nga xam ne aussi mooy xëy di duggi maas di lekk jënam mhm. di nuyu aussi association nationale de bi nga xam ne moom laa jiite ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew mhm. alors président dafa woote woon euh, ay ndaje yu bëri ay commission yoo xamante ni euh, dañuy waxtaan ci naka la dund bi di di di wàññeekoo euh, barki démb ñu ngi dalal fii président UNACOIS annoncé na prochainement ceeb beeg diwlin beeg yooyu dina wàññeeku bu baax naka noonu location bi yéen bokkoon ngeen ci commission yi yéen nga xam ni yéen yëngu ci wàllu napp mi bu ma juumule yéen a yoroon onzième commission pare ngeen ba jébbal seen liggéey premier ministre mu war koo jébbal président lan ngeen ci tënk. jërëjëf Binta euh, vraiment ñi ngi sant le président la bi Moussa Macky Sall ci xalaat bu rafet boobu xam ne am na ko teg fukki commission ak juróom-ñett mhm. pour ci lu wàññi dund bi parce que ku ne xam na ne Sénégal dund bi yokk na mhm. ah, wax dund nag <coughs> di nga wax mbay di nga wax sàmm mhm. <coughs> wax napp napp nag moo tax ñu teg commission poisson yàlla dogal commission poisson bu man mii ma jiite ko ànd ak suma xarit euh, Ablaye Dieng mi nga xam ni moo nekk euh, port mhm. jiite industriel yi man ma jiite pêche artisanale bi te xam ngay napp gi bu ñu nee yi mhm. pêche artisanale la yàlla ma jiite ko mhm. ñu ñu lëlu nag lëlu bu am solo waxtaan génn fa fukki poñ ak benn yoo xam ni dañ koo tekki taabal ji te teg ko suñu loxol ministre Pape Sagna Mbaye ñu koy nuyu monsieur le ministre de la pêche di ko félicité bu baax ci taxawaayam mu teg ko ci loxol premier ministre ñu ànd ak moom ba ci premier ñu teg ko ci loxoom muy dina ko teg ci loxol bi àgg na ñu tënk fa nag ay points solo parce que ku ne xam na ni napp gi euh, bu ñu waxee seen la. Mhm. seen bi nag ci mool bi lay bàyyi ko. Mhm. mool yi nag am ay jafe-jafe jafe-jafe yi nag biñ ko càmbaree. Mhm. ñu ne ñun bi ci jëkk nañu wàññi essence su gaal yi def ko 300 francs ñaata lay jar ni fi ne 400 francs lay jar. ñu nañ ko def 300 francs bi ci topp aussi ñu ni nañu dolli silet sauvetage yi mu doy. silet yi dafa doyul. ñu beneen bi ci topp troisième bi ñu ni aussi nañ wut. Euh, sous-location bi nga xam ni mooy tax tey fu gaal na ci géej gi. nga di ko gis. beneen bi ci topp mooy ñu ni bato yi nga xam dañuy nappi. parce que tey Sénégal boo xoolee tey liy génn ci DPM chiffre yi ñu jox. Mhm. moom mooy génn par année. Mhm. soo xoolee réew mi ni manqué jën da nga naan jën amul. Mhm. fekk jën bi aussi mi ngi am mais day génn di dem bitim réew. léegi nag ñu ne comme loolu la ñu demandé état bi. bépp bateau bu nappati ba ñëw mhm. nga wàcce 30 pour cent yi pour ñu mën ko yóbbu ci marché sénégalaise bi su ko fee marché bi mën a am jën mhm. usine boo xam tamit da doon exporté di yóbbu bitim réew mhm.

def ay convention yoo xam ni. pour que Sénégal ak Mauritanie ñu mën a liggéey ci jën bi. léegi ñun ñu demandé pour ñu ubbi frontière bi. Mhm. parce que bi Sénégal ak Mauritanie amee problème. Mhm. dañoo dañoo baaroon frontière bi. Mhm. Ah ñu baari frontière bi. bu ñëw jógee Mauritanie frontière nga yam ñu desaasa la indi la fii. bi oto Mauritanie bi mën di ñëw ba mais oto Sénégal bi man dem ba àgg Mauritanie. loolu nag tekkiwul ni. Mauritanien bi day am say-say ñëw. fii di jaay jëram comme niñ koy def rek bu ñëwee ba fii. da jox Sénégalais bi mu jaay Sénégal bu demee ba mu jox Mauritanien bi mu jaay ko jën. comme ñaari réew yi seen comme dañoo am bokk pétrole ak gaz. te mën ñu koo séddoo. mais kon jën itam nañ ko rafetal. parce que ñoom année bu nekk dañu daggal ay licence parce que ministre bi sax mi ngi préparé pour dem Mauritanie. pour toppatoo licence yi. loolu ñu jot loge bi nag boole ko ci point yi nga xam ni. Mhm. dañ koo dënk ci suñuy point yi nga xam ne dina tax jën amaat Sénégal. parce que ku ne xam na ni. muy onze points yi nga wax. waaw mënuñu ko mënuñu ko euh, éplucher yëpp léegi nii. dëgg la mais euh, ñi ngi wax que ne euh, jën amul. ci géej gi souvent dañ doon dañ doon accuser les les bateaux étrangers. si nga wax léegi maa ngi dégg nga ni 80 pour cent pêche artisanale la. kon bu buñ ne pêche artisanale mooy yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci gaal yi. Mhm. kon koy léegi xanaa bu jën ñàkkee mënuñu mhm. accuser rek euh, euh, les bateaux étrangers pêche artisanale ci la bokk. waaw xam nga yàqu-yàqu jën bu ñàkk bi. Mhm. bato bi def na gaal gi def na. Euh, pêche artisanale bi def na. mareyeur bi def na ba ci transformation ñun ñëpp ñoo def. lu ngeen def noonu ba mu ñàkk. léegi nag li ñu def ba mu ñàkk. parce que tey boo xoolee tey bateau yi. dañ leen war a ñu yóbbu ñu nekk douze mille bateau yi ak gaal nañuy jaxasoo da ngay ñu naan bëgg nañu gaal sàngam yàq nañu bateau yi ñoo war dañoo war a dem ba 12000 miles ñu xam nga 6000 miles leen def dañ leen war a yóbbu 12000 miles ñoom 6000 miles lañ nekk nii actuellement nii 6000 miles lañ nekk nii nag fii nekk nii ak fii nekk ak gaal lañuy jaxasoo di mbaal loolu nag baaxul. Mhm. léegi nag état bi dañ koo ñaan mu jël leen yóbbu leen douze mille mètres fa ñuy foofa mhm. benn gaal du fa ne. Mhm. su ko defee gaal yi mën a nekk en laisse napp seen napp te duñu am benn problème. loolu aussi ñu bokk na ci point mais est-ce que bateau yooyu loolu lañ leen santoon pour ñu dem douze mille mètres wala. non loolu moo da ko demandé état bi. waaw ñun xam nga ñoom dañ leen koo mayoon pour ñu napp lool mais comme léegi mais respecté xam bu njëkk jën dafa bari woon mhm. naan génn fi rek mbaar sa mbaarte mhm. léegi nag pour nga am jën il faut ci biir géej mhm. léegi comme boo duggee ci biir géej su ko fee gaal yi loolu ngeen demandé état bi ñoom ñu dem 12000 miles yéen gaal yi ngeen yem 6000 miles gaal yi a voilà bu ngeen fa yemee di jën dina am bu ñu koy jënd dina am incha allah. kon yéen bateau yi ñooy concurrencer euh, mooy ñoo leen di. concurrence waaw parce seen zone la ñuy ñëw li ñuy mm. mooy gaal gu ñëw ni mm. bateau bi moo laaw sama mbaal. Mm. wala toj na sama gaal. wala accident am na ci am na sax ñu ca faatu. loolu nag moo tax ñu ñaan état bi. ñu jël bateau yi yóbbu leen à douze mille mailles. Mm-hmm. su ko defee changement dina mën a ak it ñoom mais ñoom gaal seen bopp dañuy wax ni. jën bu sew bi ñuy napp. Mhm. nañ ko bàyyi. parce que dañ leen tere ay monofilament mais apparemment ñoom dañuy continuer di utiliser monofilament. waaw monofilament bi ñu ngi ko monofilament bi ñu ngi mhm. ko ñu ngi tamit mënoo koo tere mool bi noonu rek. Mhm. yoroo lu may ba nga juddoo ba léegi ci nga xam moom ngay napp ñu xëy xëy ni la bàyyi ko. ñun même loolu bu ko doon def dañ koo ñaan mu wuti. mbaal bi nga xam ne mooy mbaal coton bu baax bi mhm. sooy a monofilament su boobaa nga mën a tegal kii mbaal bi su ko mën a tere mhm. mais te mënoo xëy xëy rek nangu euh, a mhm. moom moom defar na benn daman un milliard mais finalement ñu mujj fi jógee Aminata da ñëw yàggu fi après bi Aliou Ndoye ñëwee itam affaire ba léegi soxul bi Pape Sagna ñëw na waxtaan waxtaan nañu moom ci loolu comme ne su ko ñëw nag mhm. ah loolu dañ ci waxtaan ak moom mais xam nga ki li muy dunde ak njabootam mhm. mënoo xëy xëy rek nangu ko yéen euh, loolu en attendant ñu ci gis ñu ci am solution il faut que aussi euh, ngeen wax ci euh, les bateaux étrangers parce que dañ doon wax Union européenne licence Union européenne Sénégal mhm. après ñu ne Chine dugg na si ñoom sax ñoom ñoo doggali géej gi Euh, est-ce que balaa ngeen di wax ñooñu bu ñu nappee dañ fay war a bàyyi 30 pour cent wala dañoo war a fay lii waruñu aussi euh, réglementer géej gi parce que géej gi aussi euh, fu mu toll nii ñun ñuy dem marché di jënd sax gisatuñu lu ñu jënd. xam nga ba tey réglementation boobu waruñu ko xoolaat. gis nga ba tey li coow li bari bari 161 bateau moo nekk Sénégal. Hmm. muy étranger yi ak Sénégal yu Sénégal mi nekk 129 bateau. Hmm. bateau étranger nekk 32 bateau. Hmm. loolu la xam ni. Cap-Vert ak Union européenne gis nga chinois yi ngay digg ñuy wax chinois boo gis muy nëpp dafa ànd ak sénégalaise ñu sénégalaise bato ba te xam nga tam code bi li mu wax mooy bu fekkente ni chinois bi dafa ñëw ngeen lëkkaloo ci li code bi d'accord mooy quarante neuf pour cent yi moom la moom la euh, chinois euh, bi am cinquante yi moom la sénégalaise bi am xam nga kon boobu bato mënoo ko tere napp fii parce que mhm. turu sénégalaise moo ci nekk mais loolu respecté wuñu ko turu sénégalaise waaw waaw mais xam nga loolu loolu laa la ni bu loolu lépp amee mhm. ñun licencié rek li ñu war a def rek mooy mhm. nañ jël bato yóbbu leen douze mille miles mhm. tey xam naa ni licence moom gaw ma mais waat euh, euh, géej gi géej gi ba ñu xam kii kii kii fait quoi xam loolu nga bato bu ñëw comme am ngeen ministre bu bees kee waxal ngeen moom ba sonn dégluwu leen mais xam nga bato bu ñëw turu Thierno Mbengue nekk ci waaw léegi noo koy organiser parce sama tur moo ci nekk mënoo ko organiser sama sénégalaise la sama tur moo ci nekk hmm. kooku mënoo ko xool li nga mën a def rek mooy nga jël bata yóbbu leen a douze mille mailles. loolu kese mooy mooy mooy solution bi. waaw mais nooy def parce que tey bato yi. Mm-hmm. gis nga fi mu ne nekk nii tey Sénégal. Mm-hmm. man dama leen ni. dañ mm-hmm. def a secteur de la pêche. man dem naa ba euh, dem naa ba Turquie. seeti fa ay bato. pour suñu mbokki pêcheurs yi parce ay pêcheurs yu xarañ la ñu am. ay jàmbaar la yor. tey bu ñu la wutale ay bato. du nekk sax ay gar garga yu mag yooyu mais du nekk ay semi industrie yoo xam ni. Mhm. ay deux cent tonnes trois cent tonnes. Mhm. ñu séddale ko ci tefes yi. Mhm. comme ni ñu joxe ni président joxoon cinq milliards yi moo leen pour ci machine yi. ñu séddalewaat leen ko noonu ñu am gaal ñu fexe leen def ay jox leen ko ñu séddoo ko su ko fee. tey bi ma demee waxtaan ak ñoom dañ ni ma ñoom année bu nekk mën nañu am euh, vingt bateaux. mën nañu ko defar. léegi boo ci amee cinquante ngay am cent bato yooyu bi ma waxtaanee ak borom xam-xam yi xam ne jine wàllu pes la yëngutu xamal nañ ma ni ma trois mille pêcheurs mën nañ cee xëy trois mille pêcheurs yooyu nag mën nañoo am seen salaire six cent mille ba trois cent mille kon loolu te yaakaar naa état bi ci boppam mën nañ cee amee année bu nekk soixante douze milliards muy loo xam tey baax na ci état bi waaye baax na aussi ci mool bi mais baax na ci mareyeur bi nga xam ne ma jaayee la bato day compliqué mais dañu bëgg état bi ñu ngi ni ñu ngi dégg maa ngi koy wax léegi ci audition yi ñu doon def léegi suñu pétrole ak gaz bi may leen nañ jàppale suñu suñu mbokk pêcheurs yi mhm. jéem a moderniser parce que filature ni am loon bu njëkk mhm. say na moo amoon ak mbaal mhm. ak mbaal yi mbaal laaw bi ñu doon def léegi nag jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom moo tax ma bëgg ñu jigi fi ñu nekk dem ci semi industriel mm-hmm. wutal suñu mool ay jàmbaar lañ mm-hmm. ñu wutal leen ay bato ñu mm-hmm. dem nappi loolu suñ ci état bi jàppale woon tey yaakaar naa ni coowul jën dina jeex fi ci Sénégal te jën nag dafa am solo parce que euh, bi bi ngeen koy wax ba léegi gisuñu ci mu def ci benn jéego lu dul annoncé woon fii ay bato xaw ma vert xaw ma en vert waaw de verre la fibre de verre bi ñëwoon na mais xam nga de verre bi ñu indi woon dafa ndaw par mm. rapport ak suñu mbaal yi ñuy napp parce que mm. gaal goo xam ne da ngay yeb ay 500 caisses ay 800 mm. caisses 1000 xam nga para bu kon jarul ko non yooyu pour gaal yu ndaw yi la mm-hmm. léegi li gaal gi tax ñuy wax mm-hmm. parce que fii Sénégal plastique bi la ñuy dundee muy mm-hmm. yaboy bi jay bi sompal bi yu demee noonu donc ñoo gaal yooyu gaal yu mag lay doon mais man ci man sama jàngat man li ma gis man sama xam-xam mooy ñu yóbbu leen ci semi industriel bi. Mm-hmm. dafa leen ay bateau yu ndaw. Mm-hmm. yoo xam ne ñoom daañu ci mën di nappi. Mm-hmm. parce que état bi mais est état bi dina def loolu parce que à chaque fois on. non di dégg ngeen di coow. état bi euh, di wax ne vraiment bateau étranger yi. ñu ngi yàq géej gi état bi dina ko def parce que xam état bi. mi ngi tey ñun musul am 1960. est-ce que du la nga nekk APR moo tax ngay wax loolu. du nekk APR mu 1960 tey président Macky Sall li mu jën gi nga xam ne amatul nga ne mosuñu ko. waaw mais te ngaa diglu ma wax la tuuti rek. ah déedéet duma la bàyyi ngay wax. loo xamante ne xam nga tey lépp lu muy def. dafa aaja def ñu defal la ci formation. parce que président dafa teg tey ay direction yu am solo tey. Mm. mu fi mel ni 3FPT. ñu nuyu ko jiite. Mm-hmm. ñuy liggéey liggéey mucc ayib. Mm. ak fi mel ni DER. waaw euh, loolu lu mu wut si si si napp bi. non lu mu ci wut si mooy dañ defal formation. ñu ngi leen di former. cent millions lañ jël deux deux deux mille quinze jeunes formé naa leen. entre xale yaa ngi jël euh, gaal yi di dem bitim réew nga ne ñu ngi. formé waaw ngaa déglu ma wax la tuuti rek. waaw waxal maa ngi lay dégg 2015 sën. formé nañ leen. Saint-Louis Kayar Mbour. Mm-hmm. Bargny Yaraax. Mm-hmm. Wakaam Caaroy. Mm-hmm. donc ñi ñëpp def nañ formation bu ñu leen formé ba pare nag du ñu leen bàyyi noonu ñu dem ak seen diplôme mais DER dafa ñëw financé leen. Hmm. ñu félicité waat DER aussi ci liggéey bu am solo boobu. Hmm. parce que 213 millions teg ci taabal ji. Hmm. première tranche. ni deuxième tranche bi day ñëw. fii may waxee nii tey actuellement nii xaalis boobu yëpp. biir nañ ko ci banque yi xale ñu ngi ko jël di ko liggéey mais xoolal xale boo xam tey da nga doon waaj a dem. ñu ñu jàngale ni ngay ni nga parce que ñeenti ñeenti kii lañu wala wala lañu tànnoon muy transformation halieutique hygiène ak qualité. ak aquaculture. ak euh, aquaculture ak ba beneen ban la sax. pisciculture. pisciculture euh, ak isaan ak qualité euh, maintenance bateau mhm. entretien entretien usine maintenance bateau mhm. ñeent yooyu lañ jëloon mhm. mu ñeent yu am solo yoo xam ne xale yi jàng nañ ko ba mokkal ko fi nekk nii financement bi mu ngi daw léegi li des mooy ñu dugalaat beneen ñu joxaat ñeneen deux cent quinze deux mille quinze seen yoo xam bu ngeen leen formé jox leen financement mayu loo leen financement bi da leen ko lebal ñu dem ci géej gi war a liggéey gisuñu luñ liggéeyee ndax géej 4000 francs ñetti yaboy xam nga ne kon jën amul léegi xaalis boobu bu fekkee jël nañ ko te mënuñu koo fay deer leen di yóbbu police wala ñu jàpp leen ñu fay xam nga xaalis ba nekkul rek jaayam jën dañ lay jàngal aussi ni ngay defee yarum jën fi may wax nii rek pisciculture bi ma la doon wax ñu nuyu aussi suñu xar yi nekk Mboro hmm. ñu ngi koy bu baax hmm. tey ku ñu wax Omar Diop hmm. tey boo demee ci rond Fass Boy bi yónnee na ma barki démb ay jën yoo xam ne ci ci formation bi la jàngee. te ñu am 700 kilomètres de côte mënuñoo fexe ba am jën loolu c'est ça qui est. waaw mais loolu moom. oui wax nañ ko président li may defar rek. moo ñu def conseil présidentiel toog ak président suñu lëm jam ñaajo acteurs yëpp toog pêcheurs yi toog. ñaata yoon ngeen ko def parce que xam nga tey gis nga fi nekk nii. Hmm. Sénégal li ñu war a dem mooy dañoo war a dem aussi ci aquaculture bi bu baax xam nga tax. Hmm. boo demee tey fu mel ni Côte d'Ivoire wala nga fu dem fu mel ni euh, Gabon. Hmm. tey boo demee bu ñu jaayee jën jën jën jën jën bu ñu bay fi fi ma xam ne tey siin oto camion ñu ngi kii euh, conteneur ñu ngi sax ñëw marché central au poisson mm. léegi ñun problème bi ñu amal mooy problème muy euh, euh, aliment mm-hmm. aliment lañ am problème mais tey am na benn jeune bu xam ne mm-hmm. vraiment mu di ubbi benn usine bu am solo bu ñuy wax ndam mm-hmm. ndam boobu nag ñu nekk lu Dakar après bayax ndam boobu mooy defar aliment jën bi usine boobu tey bu ko bu ñu yàlla dimbalee ñu gën ko yaatal ñu sant baax la président Macky Sall mm-hmm. parce que booy boobu yóbbu naa ko ba ci président mm-hmm. nañ ko renforcer financement ñu yaatal usine bi mm-hmm. ba mu mën di am cent cinquante tonnes par jour léegi ñu gën a yokk mbayum jën mi yarum jën mi bu ñu ko yaatalee rek ëllëg même bu fekkee géej gi léegi géej gi ñu bàyyi ko ay géej gi duñ ko bàyyi ñu dem wuti ay min ñu dem wuti ay bato fu bato yi dem ñu dugg fa ak ñoom hmm. loolu mooy wax ci hmm. tey pétrole ak gaz bu fekkee état indil jàppale na leen ngeen am bato parce que état boo jàppale fa la formation hmm. jàppale finance la jàpp jox ay camion frigo camion frigo yi bés tàq lañ état jox fi may wax nii cinquante cinq camions frigo yu bees séddale nañ ko fi may wax nii cinquante cinq camions bees ñëw na mi ngi gaara Tëngéej mm. te ci mareyeur la mbaa am ngeen jën yi ngeen fa dugal ban jën ngeen fay def non déggoo li ma la mm. jën yi moom waxtaan rek mu koy defaraat waxtaan parce que yàq bi li nga wax ci ba tey naa ci mm. mais yàq bi aussi mu ci gaal yi mm-hmm. loolu lépp nag buñ ko buñ toogee waxtaan ku ne xool la nga doon def mu ñi mareyeurs yi ñu ngi daje fii fas Boye pour waxtaanee les problème du secteur mais résultat yi moo munta am ba léegi résultat su amul sa parce que état taxawu ci pour indi résultat mais tax am mooy njiitu réew mi moom laa ñu teg wax ji dikk taabal ji parce que seen ministère yi moom échoué nañu loo xam ne ministre mënu ko jën bi dafa loo xam ne njiitu réew mi rek moo ci mën a dogu mu mu jeex ministère yi bien vrai que jàmm na mais dafa am loo xam ni mm. yàlla xam na ni ministre munu ci dara mm-hmm. secteur bi àgg na foo xam ne tey président Macky Sall mooy woote jam ñaajo ñun ñëpp acteurs yëpp ñu def soo ba ngoon mm-hmm. mu diglu ñëpp ñu wax kenn ku ñu arrêté licence yi audité audité licence ba pare nag xoolaat ni ñuy euh, joxewaatee licence yi waaw non licence moom gën nañ ko joxe licence moom fii ci ministère bi nañ ko joxe xanaa kay fi nekk nga mais gën nañ li ñu doyati licence <laughs> ñëpp ñëw nañu koy ba pare ah, ñëpp gën nañ ko joxe de moom en tout li ma xam mooy secteur de la pêche moom point euh, euh, commission bi xam teg nañ ko mm-hmm.

ak pétrole ak gaz bi ñëw nii nag bintu yow tamit ñaan ñu jàmm yoon tamit ñun luñ bëgg état dañ koy defal parce xamal ne pétrole ak gaz ci biir géej gi la nekk léegi laa nii léegi mm. bu baax suñu mbokk mm. lu may jënd jën ak jaay jën mm-hmm. waaye léegi nag pétrole ak gaz ci mm. te li ci gën a garaaw mooy fi nga xam ne fi la pompe yi nekk mm-hmm. foofu la jën yi nekk boo demee suñu mbokk yoo mm-hmm. fi ñu nappe albacore bi boo demee fu mel ni saint bi fi ñu doon nappe mais jën yooyu sax kon boo moytu ñu naan ci pétrole beeg gaz bi ah xaw naan de waaye non parce que duñ duñ fa xaar riir mi duñ ko fa xaar loolu moo tax may wax nañ préparer ay bateau parce que duñ fa xaar riir pétrole ak gaz bi dañuy gën dugg biir géej mais buñ amee nag ay bato suñ mbokk mool yi fu jën yu nekk dañ leen fa fekk moo tax état bi il faut mu jàppale secteur bi dimbali suñ mbokk pêcheurs yi mu wutal ay mini bateau ñu dem di nappi jën mi di ko indi Sénégal pétrole ak gaz bi ñu amal mooy jën jën moo fi nekkal pétrole ak gaz léegi de gën a yomb ah waa léegi nag waa ginaar moo gën a yomb jën mais li wóor ba wóor mooy li wóor ba wóor mooy waxtaan nañu teg nañu commission bi <clears throat> industrie yi ñëwoon nañu transformatrice yi ñëw nañu mhm. mareyeurs yi teewoon nañ fa mhm. tënk lañ suñu ay point mhm. jox nañ ko premier ministre bi mu jox ko premier ministre dina ko teg ci loxol président président dina woote wax li nga xam ne si moom la ciy walide mm-hmm. lu mu ci walide daal waxagu leen kañ eh, lay woote waxaguñu ko waa ñu toog di ko diglu mm-hmm. te xam naa du yàgg mm-hmm. parce que njiitu réew moom amul caaxaan ci lépp lu maa doon da cee taxaw ci fulla ak de la pêche ñun moom dañoo jàpp ne mais xale yi doon jël gaal yi dem nag fuñu ñu ngi non xale yi doon jël gaal yi dem dama ne la bis gaal bu dem te damay continuer waat defaat maa ngi appel sama ah, noonu moo gën suma xel suma jirbaat ñoom ñoo ñuy jàppale ci liggéey boobu. ñaari ñaari direction yu am solo. Mm-hmm. ñoom ñoo ñuy jàppale ci liggéey boobu te incha allah dinaa bindaat lettre dugal ko ci euh, euh, Sophie Diallo. Mm-hmm. te incha allah su paree dem ABC damay financé. mbaa du ngeen mbaa financé waa APR yi rek. non financement amul APR. Mm-hmm. gisoo man bi bi financement DER bi mu soog a commencé. ñu dajee Grand Théâtre yàlla dogal ma ba Pape moo fi nekkoon. premier financement yi sama waa kër sama waa kër ñi bokk ci man sama jigéen ñi sës ci kenn amu ci donc bu ñuy financé amuñu bu demee ci dëkk xamul APR nga xamul koo doon yow nekkal acteur di liggéey rek binduñu jox la. ñu la dee di liggéey noonu waaw mais ñoom amuñu xaaj ak seen euh, waaw yow yaa ngi CSE APR nga bokk yaa jiite maraîcheru Sénégal yi euh, jamono gi ñu ngi waxtaanee dama bala laataa ñuy dem ndax léegi mu jeex euh, troisième mandat président de la République coow li nee na cour ñii am nañ ci am na ci droit ñii ne amu amu ci droit <coughs> euh, président waxul kenn xamul lu ne ci bopp bi. Euh, yow <laughs> xam nga Sénégal noo ko gisee yow. xam nga Sénégalais yi. Ah. Sénégal daal dëgg-dëgg damaa jaaxle. c'est-à-dire président dafa deful ñaari mandat bi def troisième. Hmm. parce que président premier mandat bi mu njëkk def. Hmm. cinq ans la ko mën a def. Hmm. yoon ni ko doo ko mën a def sept ans def. te ñaari mandat cinq ans la wax waaw benn mandat cinq ans des est desul beneen mandat. est-ce que lu ma leen mandat tey dinaa la xam ne réew mi di Sénégal képp mm. kuñ ko jox ku dul président Macky Sall di nga ci am gàcce te fii laa la ko wax ah. ku ko mën a yor ku dul président Macky Sall maa ko wax kaw di ngeen ci am gàcce te réew dina ci am lu mm. waay wuteeg ñoo bàyyi ah, ñaanal jàmm dina ndox ñu dem rek lu tax yow réew moo xam ne tëli yaa ngi mm. euh, euh, kii terre baa ngi dem <laughs> santé yi réew moo xam mi ngi ci yoonu développé di dem ki ko yor président boo xam ne du xuloo du xaste doo dégg mu saaga nit doo dégg mu wax kenn dara mm. ku wax lu ñaaw yaa ko faaye du président Macky Sall mm-hmm. mais sëñ nag nañ sitaab suñu bopp mm. te a yàq jikko yi mm. parce que sénégalais yi li ñuy wax rek mën nañoo mën nañoo fal waaye mënuñoo fal loolu mooy dal sénégalais mm-hmm. mais gis nga président Macky Sall mii man de waxuma ñaari mandat man moom sama contrat ak moom 2035 lay jeex te incha allah ma dinaa ko téye ba 2035 damaa la wax fii parce que ñun secteur drapeau am nañ doole. te li ma wóor mooy su ma xëccee ñu bari xëcc. Mhm. te incha allah lu mu bëgg dina ko am. waaw APR nga bokk boo waxul lii doo wax leneen. non ay acteurs la ñoo xam ne. waaw liggéey lañ seet. Mhm. yi. Mhm. daan nañ dem ci àll bu bees. dëgg xool tali léegi ni ko defaree. xool oto yu bees yi. auto zéro kilomètre. auto jël. président Macky Sall moo ko moo ko. waaw mais waaw mais nag président nag loolu continuité la la moo wuti wa wàdd liggéey na Euh, xëy na tam bu ah, àpp ba joxee mu dem bu bu bu àpp ba jotee mu dem waa wadd commencé tali waa Macky Sall yeggali ko keneen bu ñëwee yeggali non digg nañ fi daal nun ba dem digg hmm. nañ fi ba dem de mos naa gis oto bu ñu jox ñu ñun marié yi hmm. ñu ngi soog am oto ci président Macky Sall hmm. waaw ko tey mii mun la maa ngi ko soog am ci président Macky Sall oto oto yeen la ma ne Abdoulaye dama ne digg nañ ay oto ba dem oto oto yan la yooyu mooy oto frigo yi frigo yi waaw ah, Macky Sall moo leen ko jox moo ñu da ñëw ñu jox la da ngay daw dem liggéey di fay. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu ko président Macky Sall ma ko def. réew mi nañ ànd góorgóorlu jàpp ci président Macky Sall buñ bëggee réew mi dox. Mm-hmm. parce que réew mi moom moo ko mën a doxal. amul kenn ko mën a kenn mënu ko doxal. am réew da koy jox koo xam ne day woote jàmm. am réew da nga koy jox nitu jàmm. am réew koy jox koo xam ne day wax jàmm di def jàmm. di wax jàmm. président Macky Sall nitu jàmm la de. te kenn musu ko dégg muy wax lu ñaaw. kan moo doon moo doon nitu jàmm fii. non ñu ko ñu ko fi lu nekk bari na. Mm. koo xeex ba déclenché yéen a leen di provoqué ñu leen def ay ngay ngay karaata ay yéen a leen di provoqué <laughs> su Ousmane Sonko ngay wax yéen bàyyi leen di provoqué yéen tam benn localité ngeen koy sànni xeer maam Baye Laay maam bu Kunta hmm. Baye Niass gis nga réew mi hmm. mën ngaa xëcc sonn na sonn ba sonn mais li ma wóor mooy hmm. ki fi gën moo fi toog ca Macky Sall moo gën te moo fi toog ah. man maa rax loolu kooku nu yàlla ko xam ne ah lool lay am de loolu de man maa wax fii tey <laughs> parce que li ma wóor mooy nit la koo xam ne si ci Sénégal jafe na trop ci doomu aadama nit koo xam ne doo xaste mm. doo xuloo mm. doo saaga loolu mm. président Macky Sall ci laa ko gisee. am na ñeneen ci opposition bi ah. demee soo demee ci mbay mi. Eh, soo eh, ñu ngi doon grève yéen sax si grève bi ngeen bokkoon. loolu loolu du du secteur primaire boobu léegi ñu ngi grève. du éleveur de pêche élevage agriculture yéen a ngi soog du acteurs yi di du acteur mooy grève de. c' est secteur primaire yéen ñii la du acteurs yi ñooy grève. daal nañ tàggatoo parce que yow. affaire xam nga loolu xam am yoo xam sax président ah, mais ñun ñun suñu acteurs yu pes moom duñu man lu may leen gërëm leen mm. parce que damay wax toujours ma ne ministère de la pêche benn su dama leen di man mm. damaa yore ministère mm. parce que am nañ ay xam ak ay ay yoo xam ni ay jàmbaar lañ ay ay xam-xam lañu mm-hmm. te vraiment yomb nañ jot mm-hmm. amuñu problème boobu ñun pes moom côté suñu côté moom man keroog ba ñu am leen naqari waaw laa leen loolu lañ ci taxaw léegi président Macky Sall réglé leen ko waaw kay avance dem suñu yi daal luñ bëgg mooy jën bi ñëwaat te yomb jën moom incha allah dina dina yomb ñu gisaat yeboy te léppay wàccaat waaw suba rek léppay wàccaat ah, kon kay alhamdulilah fer ak ciment léppay wàccaat jërëjëf Thierno Mbengue jërëjëf loolu moom nouvelle bu sant bu baax vraiment sant sama mbokku mariér yi mhm. di sant waa anam nag bu baax dëgg la donc góor ñi ak jigéen ñi ndey ku jël jàll ñu ngi koy sant moo mhm. jiite jigéen ñi di sant président yi ak présidente yëpp mhm. sant aussi suñu mbokk nekk ci bitim réew di yëngu ci pes bi di sant aussi le président Youssou Ndour encore il faut ñu santaat ko gërëm ko ndax day nit koo xam ne roy waay la dañ ñaan aussi barki démb li mu doon immigré jam ñaajo yàlla ci yàlla def barki di leen sant di leen gërëm te mm-hmm. ñu ngi koy siwóor mm-hmm. yàlla na yàlla defal la jàmm defal Sénégal yëpp jàmm amiin amiin ñu bokk ko mbay nga euh, yaa jiite mareyeur yu Sénégal euh, dañuy dem publicité gannaaw publicité yi ma dellu siwaat fi pour le journal